bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal bala noo agsi ci tomb bi ñuy fàttalante dañuy jaal bokki réew mi yépp suñu ñaar ñu mag ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla jël ci noonu diggante démb ak tey feenu jëm yàlla na leen gënal fii nu jóge te yàlla na leen yàlla wuutu ci njaboot gi te bàyyi fa njaboot gi ba ñu mën a àggale yéene yi way daw lu yax tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci wut ñun ñépp yëg nañu fan yii ñu génn ay wax yu bari yu jëm ci wàllu alal rekk wut alal rekk wut nag mbooleem yàlla wàcc ci kaw suuf ñuy doxi seeni soxlaa ko ñëw muy nun nit ñi ak daa bay daa ba ku xëy dana wuti ndax nit daa war a wut la muy wut ni ko daaba yi di wute waaw walla déet tontu li déedéet rek lay mën a doon ndax nit ak daaba duñ benn ana daaba yi lu ñuy wut lu ñu lekk rek kese moo ne ñun ñu nit de tase nañ fa ak ci wet ndax suñu wutit munta weesu dong lu ñuy lekk yombuta weesu waaye fi ñu gën a goree ñoom doonte noonu la leen yàlla bind ñu mel ko wala si naa xool ci ñoom yéemu ci suñu borom ni muy bindee amu ci kenn ci ñoom koo xam ne moom dana wut fu muy denc dara bu xëyee dal wuti lum lekk fu mu ko amee toog ci ker gu sedd bu reesee jant bi soo baax na bu reesut mu dem wuti waat lum lekk waaye amut fu mu koy denc wa ka ayin min dabbatin la taxmilu rizqaha allahu yarsuquha wa iyaakum waaye nag ñun nit ñi li ñuy wut daa mel ne dañoo jëlale suñu bët lu ñuy lekk rek moo ne li ñuy lekk de ci la ñuy mën a jaamoo yàlla mooy tax ñu dëgër ba mën a jaamu yàlla waaye faaleetuñ lu ñuy lekk kese kese ni ko daaba yi di wëre nit nag bokk yi su demee bay wut ni daaba di wute daaba yi ay nañuy wute lu ñu lekk am na ci ñoom ñoo xam ne yu sew sewaan yi lañuy for yàlla leen koy wërsëgal ndax yàlla moo ne wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala llahi rizquha wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullum fi kitabin mubin kenn ku nekk la muy xëy di for yàlla da koy day yabal la muy for bu koo ko joxee nangi mi jéego képp taseeg moom mooy da koy wut ci sago yàlla dem yebal loola mu taseeg moom mu far ko moom lay wax ak nit ñi naan kulu min rizqihi famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi mooy yi nga xam yàllaa ko sàkk nga jóg di ko wuti ci sago ak na nga ko war a wute mu tasale la ak moom waaye ñun nag def nañu ilayhi nushur bu ëllëgee nag yàlla dana leen laaj lu ngeen amoon fu ngeen ko jëlee lu ngeen ca def moo tax moo ñu wutale ak bàyyi ma yi waaye dafa mel léegi dañoo bëgg a dox dox yi nu bàyyi ma bàyyi ma buy wut ñu néew doole ñu tuuti ñoom yu sew yi la ñuy wër ay soccet ak ñu mel ni moom donte soccet moom am na ñu muy wër moom itam ju taseeg moom waaye ku nekk nag am na ku ko yàlla wërsëgale moo war taseeg moom mu lekk ko di ko dunde waaye ñu leen ëpp doole tuuti moom dañuy seet kuy dox ni ñoom ñu tiital ko mu daw ñu jàpp ne ñoo ko ëpp doole daal di koy jàpp ray ko lekk ko ñoom itam am na ñu leen di wër waaye bokk yi li mat a seet foofu ci jur gi li yonent bi jàngale woon ne bu kenn xool jéem a xool jëmmi yàlla waaye nay xool yàlla bind gis nga ñooñu am na si ñu gori ñoo xam ne feneen yàlla féetale moo gën a jafe duñ duñ lekk ñax duñ lekk ay xob duñ lekk ay doom yàpp kese la ñuy lekk waaye yàpp woowu bu ñu ca lekkee ba suur it duñ ko denc dañ ko fay bàyyil keneen dañuy dem nelaw yi bàyyi keneen ku ca wërsëgam nekk mu ñëw jël ko foofu jàngat bu rëy ngi fi waaye ñoom ci seen biir it duñ lekkante gaynde du rey gaynde mukk di ko lekk bukki noona mbooleem ñoo ñuy di fàdd di lekk kenn du ci lekk moroomam ndax suñ doon lekkante duñ agsi fi ñu agsi jeex nañ bu yàgg waaye nit nag moom daa dox ba yàgg mu bëgg a jaar yoon woowee gaa yi di wuute lu mu taseel rek fàdd ko léeg-léeg mu fàdd loo xam ne sax dana ko ëpp ak dundam gépp du joteeg moom dara it day fàdd fàdd daal moo ko neex yan yàlla musal ci boobu doxin buñ gisee gut munta ñàkk de mooy tax nit dund waaye boo xoolee ki dàq wut ci daaba yooyu nga xam ne foo ko fekk mi ngi def ak ak lox maanaam ñi ngi def ak rang jiit la di jëli di denc foo leen gise nañ toll wala lañuy toll dañuy sew rooj ndax wut gu metti wut denc xawma melentaan lu muy lekk ak xorondoom waaye xam naa ne moom am yaram tëna ko ndax wut rek la def ab liggéeyam wut denc kese waaye boo xoolee yi nga xam ne dañoo bàyyi yàlla seen bopp te ne ci àll bi doo ci gis kenn di ko yërëm ñoom ñëpp di naan faaj ak yaram waaye koo ca jëlee ba indi ko ci biir nit ñi ba mu denc ko fa mu koy denc ni tuuti nga tàmbalee ma mën a wàññi faaram yi ndax nit mënut boppam bay man keneen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci làmmiñu suñu borom ne yéen nit ñi bu leen mel ni rab yi di lekkante lekkante nag waxuñu di dagg di lekk ni rab di dagg di lekk waaye mooy wut loo xam ne ba nga koy wut seetoo ci lenn lu dul am ko rekk te boo ko dencoon di ko dundee bi nga woon da nga dund ñett téeméeri at it doo ko jeexal su boobaa yaa ngi lekk nit ñi ndax loola waroon na jàll ci yeneen i yoxo ñu jariñoo ko am ñoo xam ne dañ lay tooñ ci seen wut gëñuy wut ci sa biir ak wut yow ba noppi la ba noppi yóbbu la fi mbaxane nekk benn yaayaat la moo tax alxuraan ñëpp lay waxal wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil yi may bu leen lekkante fekk lu nit moom tamit tuuti nga bari le lool ne ko panget ci loxoom ba noppi dem kalaame ko ne moo ma tooñ wa tudlu biha ila alxukkaami li taakulu fariqan min amwali nnaas bil ism wa antum taalamun bu leen ko def bu leen lekkante ni bàyyi may def dal la wax ak jullit yi ne leen loolu nit ñëpp lay waxal ak nite moo laajut loolu rek waaye bi muy wax ak jullit dana ne dee leen seet li ngeen di lekk ndax alal lu mu bari bari nit weesu ca lekk dana jafe day lekk ba noppi door a xëy liggéey wala door a xëy dem ci ay liggéeyukaayam kulu min tayibaati ma razaqnaakum yi nga xam ne daa wadd rek tàbbi boo koy lekk muy rees am na léebu naar di léebu naan jigéen maanaam lu wadd nga lan nga nga nga dagg mu rot nga lekk déedéet daal ni xooleen ci jigéen jigéen fi ne lu mu xiif xiif du tax mu dagg weneen mi di ko lekk te moo ne weneen mi dafa lang de nii lang di lange lu mu lu lang lu muy wër lu lang lang lang fa lay bàyyi weneen boppam yi moom moo tax loolu it góor mën na caa bokk bu mu def lu wat lu lang rek mu dagg ko ndax léeg-léeg mu rocc bu dee bu dee ku lu wolof na ne ku ñu def lu loo romb rocc ko léegi tey nga rocc loo xam ne dootoo yóbbaale ay waaraam nit ñi nag su fekkee dañoo déggee diine ne mooy jaamu jaamu yàlla yi kese kese kese njuumte mën naa am ndax jëflante bi jaam yàlla daf cay fekk jaam bi àtte ko diggante mi moroom mi jaamam am na ñooñ bu ñuy wut seetuñ baax na wala baaxut baax na ak baaxut mooy xaraam na wala dagan na waaye lépp luñ mën a jot daal bu ñu ko jotagul mën naa araam waaye bu ñu ko xasee ba jot dagan na dañuy seeti ay moroomam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon li gën a lew ci liy lew mooy loo xam ne dangaa toog rek nit ñëw jox la ko nit ñëw jox la ko nga xam ko xam li muy liggéey xam ni mu koy amee su booba boo koy lekk muy rees ndax yàllaa la ko jox da ko jaarale ci ay yoxoom rek waaye su fekkee dangaa taxawal nit ki ba tànqal ko mu jël sànni la ko boo ko lekkee baaxul wala boo nga ne jox leen ma nangam ji ma defal leen ci nangam wala ma def ci nangam ñu xañ ko ñu bari jox la ko su boobaa génn ci wërsëgu yàlla di joxe waaye yaa ko wuti yaa ko daa lang nga dagg ko rocc ko daa lang nga rocc ko del faral di xool say waaram ba xam dana nàcc wala dana dana futt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kuy lekk lu lew bu ko neexee bu ko naqaree dana ko jaamoo yàlla waaye koo xam ne lu lang mu rocc ko mu neex ko mu naqari ko ci moo yàlla lay dëkk te du ko sañ a bañ ndax lu nekk bu ko nit ki lekkee la muy lekk waxuñu mu lekk yàpp yàpp xar wala yàpp nag ci misaal ndax yàpp yi dagan la waaye nu mu ko nu mu lu muy liggéey ba am yàpp nag yàpp yàpp xar loolu moo tax ñuy wax am na ñu ko leeral ci ne lu la neex mën nga ko lekk loo romb rek lekkal waaye loo lekk nag bala moo rees da nga ca def cosaan la ko jur la ko jur bu la neexee tam ku la neex àndal ak moom waaye koy àndal bu yàggee ñu jox la ab àtteem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wut lu lew di ko dunde amul fenn fu mu wax denc waaye loo xam ne da nga koy jëfandikoo léegi léegi keneen soxla ko nga jox ko ca rek moo tax muy wax kuy denc moom yonent bi waxut ak moom nee na wut lu lew di ko dunde jihaat la li tax mu doon jihaat mooy yow li ngay am du bari li lew bariwul li ngay am du bari xañ gi nga xañ sa bopp yu bari ya nag jël lu néew li moo tudd jihaat ndax da ngaa daan teg sa bakkan ndax am nañu lay romb di daw lu bari nga ne kee fu mu jëm ñu ne lu bari la ne barab sàngam wutali ko su soo taxawut du jëfandikoo lu lew rek fu mu taxaw bala moo dallu rek nga fekk ko fa te yaa koy gën a sedd aw yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki li muy lekk ci biiram ci la aw yaramam di dunde wépp suux woo xam ne nag lekk lu dul noona moo ko saxal ci yaramu nit ki ba nit ki di dund suux woowee bu ëllëg yàlla da ko naan sempet yóbbu ko sawara te buy dem du ànd ak du ànd moom kepp moo yaram bee mën a ànd ndax ñoo bokkoon di ko def yàlla nañu ci yàlla musal sëñ bu mag bi ne di muy leeral lool daf ne ñett ngi nii ñoo xam ne seenu ñaan yàlla du ko nangu jërul ñu di leen ñaan loo ba ci jëkk mooy koo xam ne fu mu toll mi ngi jëw ak koo xam ne seetu li muy lekk fi muy jóge lu lang rek mu rocc ko ba noppi bëgg ko ne fatiix la ca des mu denc ka leen ñetteel mooy ko añaan añaan nag mooy ko jékki-jékki rek di bañaate lu am lu nit lu nit am mu ne yàlla na ko ñàkk lu muy séentu mu ne yàlla bu mu ca jot nee na ñett ñi ku dugg ci dayre boobu dayre ñett ñooñu kenn jërut muy tàllal loxo yàlla naa ko yàlla ya allah ya rab saa bu nee ya rab yàlla du mooyu yàlla ñu ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne it day wax ci alquran ji wax ak ñépp tudd na ñett ba ñeent ñoo xam ne mat naa bàyyi xel lool te bari na ci suñu jamono nee na ku la gën a jege jege lu buur lu mu gën a jege buur di gën a sori yàlla ku la gën a mën a jege buur rek moo lay gën a sori yàlla ni ngi mel ni ku jógee ci dëkk bu mag làmp yaag lépp ne fa mu dox jëm ci àll bi fuy fiir lay taseel waaye ku la gën a bari mbooloo gën laa bari ay seytaane ci biir mbooloo ma wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwan shayatin al insi wal jinn yuuxi baaduhum ila baadin zuxrufa alqawli xurura waaye ku la gën a bari alal moo lay gën a yàgg ak mbugal bu ëllëgee ma zdaada rajulun qurbanan min alsultaani illa zdaada min allahi buda wala kasurat atbaahu illa kasurat shayaatinuhu wala kasura maaluhu illa kasura iqaabu kon boog su ñuy wut moo xam lu mën a doon am na ñooñ buñ na la nangam ak nangam boo ko defee da nga falu te fekk ak pal lay wut jaral na ko lu nekk donte dañ ko ne rayal nit am na ñoo xam ne bu ñuy wut ngir gañe am marché jaral na leen lu ne donte dañ naan la jëlal mbindeef muy dund nga gas ko suul te fekk mi ngi dund am na ñu ko jaral am na ñooñ suñ leen waxee lu gën a yées loolu sax te fekk wut lañ ko doxale seen diggante ñeme nañ koo def kon bokk képp koo xam ne daa bëgg a jege yàlla na sori wuntu kari buur yi ndax kat ci suñ jamono lu bari dañuy yaakaar ne buur a koy joxe léegi ku ko jege wut doo am te déedéet buur joxut boppam sax nguur gi bay am leneen yàlla mooy joxe nguur yàlla nee na mooy joxe nguur joxe waaye bu koy jëlaat du ko jël da koy pangaar ci tuutil mulka moom da koy koy jox noonu rek waaye bu koy jël si moom du ko nanguwaat daf koy pangaar ci ci loxoom tanziul mulka mooy ku doon ñaw ba boros ba mu àgg ni muy roccee ro ni muy ni muy roccee buum gi mooy inza naza kon boog lii xew jamono ku nekk coow mën koo topp sëriñ bi gisoon na ko bu yàgg bañ ko naan ñëwal ci buur da nga ko jege mën nga koo jege ndax nangam ak nangam te nangam ak nangam mën na caa juddoo gisoon na ne ku jege buur ay weñ mën na koo biiw ndax daa yor màngo ku yor màngo moom muy toq ci loxoom weñ di ko topp kon ku ay weñ topp nañ xool ba xam ne ko weñ yi toppee daa yor lem wala dafa yor màngo wala dafa taq loo xam ne kenn bëgg ko tudd bind na ne ku ñuy wax Muhammad ibn Salamata nee na kuy dem ci kër buur ba bari fay tànk ba buur xam ko waa kër buur ràññee ko mi ngi mel ne weñ wu dal ci ay dem àll ka doon jàng ba ka doon jàngal buur bataaxal ba mu gisee mbind ma dafa istirja suñ mbir lim jot da nga ne bind ne ko ci téere bi ñuy wax irwa un nadib inna lillahi wa inna ilayhi rajiun buur ne ko lu mu mu ne ko kii kay lim wax lim bind kay mënu si ko jàng mu ne ko am na lu ñuy bind loo xam ne kenn mënu ko jàng mu nettali ko ko mu ne ko loolu koy santal yàlla yow waxu la dara yow mii di ma jàngal kay di moom waxu la dara yow ndax yowee weñ wi man nii maay kañ bëggut a tudd kon sëriñ bi wane new yoon lam ci doon bañ rek mooy ay weñ ji koy topp moo tax na ñuy wut te ànd ceeg suñ sago na ñuy wut luñ dunda rek ndax mag nee na woon adduna ñetti fan rek la waaye ñetti fan yooyu boo leen boo ko boolee benn rek la démb la tey ak suba nee na démb bokkatu ci tegatu la dara ëllëg bokkagu ci tegagu la dara dangay fexe ba tey jow agsi mu mel na war a mel rek su su ndax suba tey mooy doon suba mooy doon démb ju dul jeex kon bokk yàlla noonu yàlla dimbali te musal ñu ci seytaane ki pakkam ndax kat bu fekkee ku dencut lu ne gàññi da nga yewwut wala da nga gisut da nga amut vision maanaam ca kanam luy ca kanam bokk yi kër goo fi gis nit dëkke ko keneen na ko dëkke woon bu fekkee toj na la fa diw dëkke woon tabaxaat ko it suuf sama moo fay nekk moom la fa diw bàyyi woon ay maamam fekkoon ko fa bàyyi ko fa te koo xam ne am nga juróom fukki at bee boo nga xool sa avenir ci ginnaaw da ngay gën di tële da ngay gën di je gën tëlee lekk te ku tëlee lekk léegi tey ay nelawam jeex su boobaa ay yaxam tàmbalee metti jóg di ko jafe su yàggee maanaam xoolal ma fi ba xam lu ñu fi bind su yàggee kuy wax moom da ngay dar ab noppam su yàggee ay bëñam manqué tàmbalee dañ par benn ba yàgg ñu di ko joosal ba yàgg fu mu jëm teg loxo ci mbaggum ab xale moo ko yóbbu fu mu jëm kon bokk lu ko fa jar nekk fii te bokk yi su fekkee da nga bokk ci ab lim te bu ñu la tuddee tudd ñëpp yaa ngi teg ñëpp tooñ koo xam ne bu ñu la ko jéggalut da nga ko layoog ñoom ëllëg la ba sëriñ bi di wax naan foo mbooloo moo bokk fexeel ba ba doon diw te bañ a bokk ci ñoom mbooloom gut noo ko mën a amee baaxante ko dañ ko taxutoon muy wax mbooloo ma tax mu naan mbooloo moom nekk fexeel ba doon diw mooy mbooloo moo xam ne dañuy wut ci seen sago di ko wut nañ ko war a wute ne ko diina santaane te duñ ca weesu lu ñuy lekk ka naan kepp la ca des ñu jox ko ñeneen ñu ko soxla ñii jëkkoon a dëkk Tuubaa daal ci at yu mujj yi nga xam ne ndaw ñi mën nañ ko fàttaliku waxuma la denc ci magasin waa kër ga dem di fa natt njël déedéet war lu wuñ woon di joxe bis bu set lu ñuy lekk sax saa bu ñu ko amee joxe ko bu ñu ko amul bàyyi nit sóob na ba tey ci këram soq soq njël am ku ne bàyyiwuma kër ga dara mu ne yekk leen ko jox ko ko ndax noo ko tane ndax bu ko fekkutoon duñ bu ko fekkutoon daa fekk ñu am ko toog néeg yàlla te amu ci kenn ku yàlla mas a tas yaakaaram kon boog faw ci nit ñi am ñoo xam ne dañuy futtiku di xool ñooñu di leen roy ndax loolu aw yoon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu fi dara luñ koy doon ne moom sax nee na yonent yi duñu leen doon ci alal waaye ci jikko lañ leen di doon sëñ bu mag bii ne moom moom itam ku koy doon doo doon alal ju du jeex doo doonu dara waaye liñ koy doon ne mu tudd ndono lu wér ñu ne moo gën a bëgg alquran moo gën a bëgg xadis moo gën a bëgg njàngaleem sëriñ bi moo ci gën a nekk ñu ne kooku moo ko doon kon boog la mu dénkaane woon te sëriñ Cheikh Sarr nettali ko doomi sëriñ Bay Sarr ne wàññi leen tibb yi wàññi leen tibb yi la xewoon dam di ko wax lu yéeme la daanañ jël ci biir këram gi gàtt yu baax yóbbu ko ca àll ba defar ko fa lal fa mbàjj yu baax yi nga xam ne ba léegi si yi koy roy rekk am waaye yu mel ne moom amaata gut jël gëtt yu yu yu yu gànjaru gëtt gëtt yoo xam ne kër sëñ bi rek la daa am ñu di ko taaloo nga xam ne àll bi day xeeñ xunn ak gëtt suñ ca jëfandikoo ba noppi jóg bàyyi ko fa dem ba ko cay yam yam ca moo tax suñ Musaa Ka doon wax naan ci xarnu bi soo ñu joxoon nag lañ yoroon duutuñu def lañ defoon xanaa xamoo ne yaru nanu waaye fekk la weesu na ci la doon waxee ne wàññi leen tibb yi sëñ Cheikh Sarr nee na sëñ Mbay Sarr way juróom jóg taxaw ne ko xool ma man de maa ngi nii ne ñadd waaye moom nag andi wutu nag nit ñi ragalante gannaaw da ko jox xar bi ne ko bàyyil su ma wax nga di ma dogale man soo ne ñadd ñaddaloo ma dal ne képp koo xam ne dégg na fu ñuy demee àjjana te doo jaamu yàlla na fa wutali awma ko fépp fu ñuy wut fépp fu mu dégg ne teraanga fa teraanga ma nga fa te kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti kepp na wutali foofu loolu man awma ko mbind la rajaau taa rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maaxi xururun yaati yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te musul seytaane ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin